mu ngi noonu ñu jeexalee nag ak euh, Omar fay leeral askan wi moom nag mu ngay ñëwaat ca kàddu yi nga xam ne moom Sonko waxoon na ko ay fan ci ginnaaw jëm nag euh, ci mbirum euh, Laye Sangara moomule moom nag wax ji yóbbu na ko ci beneen sens peut-être alaaji bu dégloo dinaa am dégg-dégg bu bu mu ci am bu wuuteeg moom na mu ko waxee moo du ay ca tegal ñu boobu la vidéo Sonko il a dit nee na yow Barthélemy Diaz saa yow naanee sa bouteille bi sa wax sa wax da nga yàq say wax. c'est pas le discours d'un responsable. li Sonko wax moo grave saa yow naanee sa bouteille bi tu ne t'adresses pas à Barthélemy tu t'adresses à tous les chrétiens. c'est Omar toi tu es dangereux. ah non non non. ah oui si tu t'adresses pas à Barthélemy parce que c'est un chrétien. non non c'est pas. diine meek ko mu naan ko yow nga taxaw. ànd àndoo àndoo ak ak maanute nga ñëw. ale nga tontu ko ci politique. nga tontu ko ci diineem ak ci li nga xamante ni diineem moo ko moo ko sant. donc ce que ton gars a dit est beaucoup plus grave. Omar yaa ngi changé ci fais du coca là. non non non non non non convocation ñu ne nga wax mi ngi noonu alaaji man de wax dëgg yàlla Omar Faye li mu dégg ak li ma dégg man daa bokkul xanaa la peut-être laa foog ndax fi mu jëmale wax ci moom. ah Omar wax moom moom de moom moo bëgg a wax ne. suñu mbokk chrétien yëpp ñu ngi leen di nuyu. waaw moom de moom moo bëgg a wax ne suñu mbokk chrétien yëpp. ay naan ko dañuy kii. moom moo ko bëgg a wax. ah loolu de moom moom mii moo ko wax. waaw. <laughs> moom mii moom moo ko wax jarut mu ne ma xujj nii moom moo wax wax ji <laughs> yaa ngi dégg. waaw. soo ko waxut ñoo xam ni. daf ne mm-hmm. koo xam ni. voilà précisé koo xam ni. tuddul tur ba tey. léegi moom moo ko yóbbuwaat encore ci Barthélemy bi yamut ci de Barthélemy daal di jël chrétien yépp nag dugal leen ci moom Omar fay donc ñi jàngu bi kër chrétien yëpp war nañoo jóg ci Omar Faye bi parce que li mu def nii dafa grave parce que nit euh, bu nit waxee yamal ci li mu wax ci li wax bu dee da ngay atte atte parce que man fi mu doon ci ay waxam rek laa yam de mhm. li mu wax moom man waxuma luy nga xamante ni li Sonko wax waxuma ko man moom li mu wax moom moo indi turu Barthélemy ci wax ji moom moo indi chrétien yi ci wax bi Sonko mandikat lay wax mandikat di am na ñoo xam ne ñu ngi wuyoo musulman ah. doon ay mandikat mm-hmm. ak bëri am na ñoo xam ne ñu ngi wuyoo chrétien doon ay màndikat mais am na ñu nekk ay musulman du ñu màndi am na ñu nekk ay chrétien du ñu màndi mais moom Omar Faye mm. moom moo jël chrétien yëpp bëgg leen dugal foofu te pourtant waa jaa koy jéem a jubanti dara ba wax ne ko sax sàngara yoonu Sénégal daf koy tere ah. lii mu def nii lii mu def nii dafa garaaw daa mm. ngi wax euh, jeune chrétien yëpp ñëpp il faut ñu jóg wax ko mu jéggulu publiquement parce que dafa war a tuub ci kanamu askan wi yépp jéggulu parce que li mu def nii dafa grave nit mënul wax sànni ay waxam nga jël dëkkale ko fii yemoo foofu nga dëkkale ko far nag ca diina ja diina ji lañ war a bàyyi nag ah ji moom lañ ko war a bàyyi day manipuler ba far duggal boppam loo xam ne yoonu diine nekku ci nag alaaji donc ci politique lañ ne politique lañ ne na yem ci cadre politique bu fekkente ni moom dafay diaboliser mu yem ci cadre politique mais bu mu ci dugal diine ji yaa ngi li mu def nii lu dangereux la mhm. wax la joo xamante ni bii wax ju garaaw la wax te pourtant dañ leen di jéem a jubante ñuy insister non dañ ko war a demande mu jéggulu publiquement <laughs> waaw moom ay waxam la moom ay waxam la moom ay waxam la wax mhm. te dafa war a jéggul tuub lii nga xamante ni bi moom la wax parce que amul fenn fu mu lay génnale Ousmane Sonko tudd diine fenn fu mu lay génnelee Ousmane yow nag yaa ko dégg yow mi dégg loolu yaa war a leeral loolu ah. waaw yow yaa moom moo war a leeral loolu parce que lii wax dëgg fa yàlla euh, kii ma jigéen mm-hmm. jégglu war na cee am parce que li mu wax ni moom dafa garaaw waaw mhm. parce que moom dafa jël diine lëmm mu wax ne te pourtant moom dong de am na yeneen gaa yi wax même discours bi yeneen gars yi wax yooyu yëpp ñoom ñëpp laa wax benn lañ képp koo xamante ni ki wax nga loolu yéen a yem mhm. yàgg lii waaj yi wax yéen a yem mhm. waaw donc nit bu waxee yamal ci lim mu wax ci li wax looloo dëgg Ousmane Sonko tuddul turu kenn bu fekkee ni dafa gis ay boo yoo xam ni am na ci kuñ ko jëmale boo yee ko jëmale feneen mhm. waaye waxul ne diw nii lay def waxu ko mhm. yow nag yamoo ci diw waaye danga ngaa yegg yow ci diine jàmbur nit ku ne hmm. dafa am loo xamante ni bii waroo ko xuus di def yëfu politique di jéem a manipuler mhm. man fa ma dëkk maa ngi dëkk ak ay chrétien xam naa ci ñoo xamante ni bii duñu naan. du ñu tux du def dara. Mhm. respecter seen diine naanuñu defuñu dara. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. donc bu fekkente bi da ngay wax waxu politique. nga bëgg a ñëw bëgg a jël. diine ji mandikat lañ la wax aussi tamit il faut faire très attention entre koo xam ni euh, li muy naan kii na ci moom daggan na ci moom mën na ko naan ak mandikat bokkul mandikat feebar la yaa ngi dégg di parce que loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li Sonko wax te tudd turu kenn màndikat nag am na fépp léegi lan moo tax ñoom ñu yëpp baat rek. yaa ngi man non mandikat dafa am fépp. <laughs> am na ñoo xamante bi ay musulman lañ. te ay mandikat lañ waaw bàyyi na fii. yaa ngi dégg waaw. léegi moom lu tax mu bëgg a jagleel yëf yooyu. yóbbu ko ci diine. Mm. na bàyyi manipuler boobu. Mm-hmm. te lii dafa war a jégglu mm-hmm. publiquement mm-hmm. dafa war a jégglu parce que lii mu wax dafa garaaw waa laa di jéggalu ku rëy du ko def de tudd diine waaw dana waajoo xam ni balaa muy wax waajooju fan lu tax nga bëgg koo wutal yow ne diw la loolu say waxa du waxu ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko yab diw la sax donc li mu wax nii dafa garaaw mhm. te donc ko war a demander mu jéggulu publiquement ci kanamu askan wi mhm. incha allah mi ngi noonu xëy na daana ci jote ba mën a jéggalu askanu Sénégal rawatina nag suñu mbokk chrétien yi nga xam te ne ni laax na leen ci xanaa rek di bàyyi eh, njugu mu tàggoo ka eh, ñi nga xam ne rek nit ñu doon eh, bàyyi xel waaw di joxante dig daje incha allah rabbi beneen altine ci kàttanu borom. ci kàttanu yàlla yàlla ñu yàlla may fekkee ak tal. di jaajëfal képp koo xam ne rek yaa ngi doon suivre solution. Euh, di jaajëfal bu baax a baax El Hadj Modou Diouf Abdou Top Abdoulaye Diallo euh, jox leen dig daje beneen altine ci l' émission des émissions.